jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am mbégte ak kontaante comme nuñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci marché kolobaan ñëw fi nag seet si fi koo xamante ni mbër la champion la waaye dañ ko fekk fi muy dóoree waar ndax ak wasaare làmb mbër métier da cee baax rawatina ñu fekk la fi nga xamante ni fa nga fekk baax nekk faak say nawle nekk faak say xarit nekk fa ak say am di jàmm di am loo xamante ni da nga koy di ko yóbbu sa kër bu làmb tojee tey nga am ci loo jàpp ndax làmb kese kese du métier ni ko sam doon waxee mbokk yi kon tey moom lañ te seet si muy Sabala 2 ñu seet si ko ngir waxtaan ak moom ci làmb ak fu mu ne ak lan moo tax ba léegi dégguñu combat am waxtaan ak moom lépp loo xamante ni day jëmale làmb kanam mbër maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay doom doy waa di la ziar di wax onze bi laa ina wala yàlla jërëjëf Serigne Touba xam nga. di nuyu sama gars yi nii teew fii waa Colobane maa leen di bëggee bu baax tamit yow aw ma sa fay quoi man moom nuyoo bi dama koy jiital si yow ak sama cameraman bi nga àndal nii xam nga di leen bëggee bu baax parce que actif bi ngeen def nii dafa rafet kontaan naa si bu baax a baax a baax sama xol moom fees na pour l'instant xam nga ginnaaw loolu maa ngi nuyu xam nga su nga xam ne foofu laa cosaanoo muy altu ndàngal ma di leen nuyu bu baax xam nga di nuyu sam papa di nuyu sama yaay. surtout ma sama nijaay bi nga xam ne këram laa yoroo di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sama gaay yi nii bu baax parce que tamit ñii rek moo tax may am courage ci làmb saa su waaw maa ngi bëggee gaay yëpp xam nga di si mel ni di si jiital si nuyoo bi ku si mel ni Cheikh sama doom day ji taxaw xam nga ak Moussa Lo xam nga sama gaay yi nii nga xam ne ñoom dañuy sonn si man daal di leen bëggee ñoom ñëpp sama boy bi yi nga xam ne taala moom day sonn si man saa su ne xam nga di bëggee gaay yëpp xam nga gaay yëpp teew lii sax mbooloo mi waroon na gën a ëpp nii sax mais combat moo amagul sax mais dañuy ñaan yàlla combat am ban wane suñu bopp parce que tamit ay xale lañ bëgg nañ li ñuy def man nañ ko. xam nga xaj na tamit combat yàlla suñu borom moo dogalagul mais instant bi jot na mais teewul ñu ngi compétir si mbapat yi xam nga di def lu ne di ko ñàkkantee gaay yi waaw ñu ngi mujj a takk ngemb si 10 million yi paase rek waa ki gën général moom laa mag si nii lal xam nga. deuxième tirage gars yi jox ma avertissement génne ma par avertissement mais ñu ngi sant bu baax ñu ngi sentir suñu bopp ci làmb tamit te du découragé wu incha allah. nga dugg si ci làmb. waaw làmb boo xoolee man maa ngi ñëw Dakar 2007 laa ñëw dakaar mais nag Brise làmb man moom boo xoolee football moom ma gën a neex ni làmb Brise làmb moom ma dugg ay côté 2015 xam nga 2014 laa commencé opté bëre parce que sama turandoo mooy bëre. muy Sabala Sabala numéro un di ko nuyu au passage di ko nuy bu baax xam nga moom moo ma gën a ñaax si affaire yi. parce que tamit dama ñëwoon benn làmb bu mu doon bëre dëkk ba ma ñëw fekk gars yi di bëre ma xool mbëri mbëri xam nga tuuti trop quoi mën na ñii mënuñu ma man war na maa mën a dugg fii laale xam nga ma bëre fa ak benn gayen daan ko xam nga si la ma bëre dugg si quoi. waaw noonu la demee. bëre dugg si la nga dugg si ci arène kañ ban at nga dugg ci arène. waaw sama combat arène maa ngi ko njëkk a bëre fële Réfane waaw Réfane laa ko bu njëkk a bëre deux mille deux mille dix sept la. deux mille dix sept bi laa ko fa bëre quoi Réfane man ak Petit Kona. waaw moo ma daan quoi foofu Réfane. kon sa premier combat arène da ko ñàkk. dama koo ñàkk sama premier combat arène gars yi pare dem. xam nga mbër boobu sax toujours da koy wax parce que tamit moom toujours danaan man lu ma am si làmb Sabala 2 la parce que tamit làmb jooju noonu dañoo dugg si lamb ji yëpp ñëpp xam na ñun làmb ji tey suñu lamb la si supporter xam nga si animation lamb peut-être tamit ñun lamb la ñuy dund ah. bu ñu jógee suñu gox ñëppay jóg waaw ñu dem fa xam nga président ndeysaan naroon nañoo tëggalaat combat mais si diggante bi dafa am ay jafe-jafe di ko nuyu bu baax ba que tamit moom day def si lu ñu ne quoi ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal xam na li mu bëgg si làmb mu jógaat yàlla def ko muy tëggaat ay combat parce tamit dèjà xam naa ne moom bu doon tëgg làmb ba tey ñun bëri nañ bëriwaat ñaata combat nga bëri premier combat boobu mooy sama premier combat boobu tay tey bëriwaatuma. kon benn combat rek nga def sorti arène. benn combat rek laa def sorti mais yàlla dafa dogal nag man chaque jour maa ngi compétir si mbapat yi di bëre. dama lay gis ñëw di ñàkkante ak ponkal yi. di ko ñàkkante fii ba Gambie. waaw di nuyu sama sama waa dëkk foofu noonu saalum waa Samba Gueye di leen nuyu bu baax a baax a baax ku si mel ni vie ak Kéba xam nga ak ak sama paa bi nga xam ne moo may jàppale foofu di ma ñaanal muy Abdou bu baax day jàpp si affaire daal. waaw di ñaan gars yi nañ gën a yokk ñaani yi combat taxaw xam nga ñu mën a bëre parce que tamit ñun li ñuy def nii mën nañ ko a ah. gëm nañ ne ñuy bëri ay grand combat fii nii kun si jàpp defaral la bagage loolu lu ma leer la bilaay. ñan nga gis ci làmb ji foo xamante ni say naataangoo lañ te làmb boole na leen bëgg ngaa bëri ñoom comme benn sortie nga def ci combat te bëree goo Dakar te gis naa ne bi ñu ñëwee fii ñëpp dañoo dagg seeni yitte dagg seeni liggéey ànd ak yow moo lay ne am na fu la teg am na loo xamante ni jaral nga leen ko ban combat ngay xaar ñoo xamante ni jàpp nga ni yaa ñoom combat la. waaw parce que boo xoolee daaw ñu ngi démarché samay combat yu bari mais mbër yi léegi dañuy dañuy taamu ay mbër parce que buñ la gisee nga commencé def si lutte simple bi dara rek xam nga dañuy commencé di daw deux quoi seen seen manager yi sax duñ la nangoo jël. ku si mel ni ci damay tudd tur jox nañ ko sama avance. Thié bu dóor dóoraat. waaw Thié bu dóor dóoraat jox nañ ko sama avance daaw mu dem ba combat bi des ay quelque jours li may wax ni saal ba mën na koo gérer mu delloo avance bi. xam nga ku si mel ni sero arrière bëri na bu yàggul sama combat man ak moom dox nan ko ba na taxaw na ba mu pare mu dem ba si biir dajee gaay mi ñu naan ko sabala deux bu la jàppee da lay taxañ mu delloo avance ku mel ni daam sugeer daf ma war a jël parce que tamit trois combats la def xam nga yaa ma gën a xam trois défaites la tegle agogo war nañ ma mën a may sens chaque jour dama leen ko wax ñoo bokk groupe chaque jour dama koy wax idali bu déggee li may wax nii na taxawal suñ combat pare naa parce promoteurs i ñoo wax sibagul waar rek mais fii buñ fi duggee buñ ko xasee mos duñ ko bàyyi billaahi. macha allah ku la gis xam ne toll nga ni ñoom dugg nga ci ñoom mën ngaa bëreeg ñoom waaye làmb nag noonu la demee des fois ñi ngay bëgg duñ la bëgg ñi nga dul bëgg ñoom ñoo lay bëgg waaye yàlla làmb moom fi mu toll nii yaakaar naa ni bañoo ken ku ñëw nga jël. bañuma kenn man kay instant bi bëre rek moom ma ñor parce que dama war a dab samay moroom waaw bëre rek moo ma ñor billaahi bëre rek laa bëgg. tamit sama waa écurie ñu ngi ciy def ay jéego bu baax a baax. écurie nga nekk. écurie Doudou Bakar Sarr laa nekk. Doudou Bakar Sarr Doudou laa nekk. di nuyu bu baax sama coach Baye Mbaye maa ngi koy béggee bu baax di ko ziar di nuyu suñu per Jaxate xam nga nga xam ne mooy suñu président écurie bi day jàpp si ñun di sonn. yankaaw yankaaw kooku sama doom doy la ñooy ànd guddeeg bëccëg. daanaka boo xoolee sax lii moo gën a jokko tax mu am parce que moom lu mu dugg rek dama ciy yéene parce que man moom ñooy ànd fu ne waaw ak sama copain bi taxaw di Cheikh Awa di ko bëggee bu baax di nuyu sama doom nday sens interdit ma ngi fii ba Morok di ko bëggee bu baax kooku sama doom yaay la waaw ñoo defandoo lépp waaw maa ngi koy bëggee bu baax waaw yaa ma gën a xam. fii moom loo fi loo fiy liggéey. fii téer laa waaw téer laa damay daamina gars yi ñoo may jox may dagg ay ñaw yu rafet ma leen koy daamina ku si mel ni sama doom day Moussa Lo ay ñoom Ousmane xam nga di nuyu tamit sama doom day wës wës bu sabala maa ngi koy bëggee bu baax kooku yenn saa damay dem si àll bi bëri ji sax xam nga day def acte yu rafet day gérer place bi parce que man ak moom ñoo bokk place bi day gérer affaire yi nicement te tamit du xool si dara kooku yàlla moo ñu boole sax ñu bëri dañuy jàpp ne sama rakk la te yàlla xam na ne si marché bi lañ xamante booy bu ma jox cër maa ngi koy bëggee tamit moom bu baax a baax a baax waaw fi nag ay téer lan di góorgóorlu di taqale. boole boo xëyee ñaata séance ngay entraîné boo ñëwee nooy liggéeye boo wàccee nooy def ak làmb bu amee ci dëkk bi nga war a génn compétir noo koy dundee ak liggéey bi. mbaa ñëw jàmbur yi duñ tardé. noo sax noo sax parce que yàlla dogal na am na sama benn booy boo xam ne jàngal naa ko xaw naa man tuuti xam nga di ko nuyu bu baax moom it sama fils la xam nga euh, liggéey bi moom nen parce que ñun deux la ñuy def pour l'instant deux séances la ñuy def dañuy yeewu quatre heures du matin dem diin ya entraîner ku si mel ni sa cité euh, bu Saloum waaw moom champion la day sonn si ñun di ñu teg lu métti diin ya ak Pierre di ko nuyu bu baax a baax ak yankaaw boobu noonu ñun ñooy ànd à chaque fois chaque quatre heures dañuy yeewu dem diin ya bu ngoonee ay cinq heures ñu dem écrit ba entraîner contact loolu lañ koy jàppee quoi yenn saa yi tamit ñu jëlal jour dem salle musculation suba gi ay côté huit wala sept heures entraîner après bu ma ñëwee damay sangu rek xëy parce que mbër mu ndaw moom yombul da ngay ñëw rek sangu xëy ñëw jaayante ci téer bi xam nga takkaleel gars yi li lay jox mu jeex nga dem entraînement. Mhm. ñaata at man instant bi maa ngi samay vingt cinq ans. vingt cinq waaw. Euh, vingt cinq ans ba léegi ba ngay dugg ci làmb metti woon na ci yow. waaw metti woon na trop parce que tamit bi may dugg si làmb dèjà man suñu waa kër dañ ma doon tere làmb waaw ñoom dañ ma doon tere làmb sama yaay surtout sama yaay ndeysaan di ko nuyu bu baax waaw di la wax yaay man yow rek laa bëgg a teral si làmb ah billaahi li may def nii yëpp pour yow la waaw moo tax may sonn saa su ne def na lu ne pour ma bàyyi làmb mais ba mu demee xam ne sama bëgg-bëgg la dama see bàyyi mais xam nga ñoom maire bi njumeen la quoi bi may njëkk a gañe ay saakoy ceeb benn dëkk bu naan sàngal ma finaalu foofu gañe ay saakoy ceeb ñëw jox leen ko ñu may ñaanal xam nga si leen ma gën a bàyyee mooy bëre waaw loolu moo gën a tax ñu bàyyi ma mooy bëre daal waaw mais miss bi nga jël euh, saako ceeb la. non jël naa ay miss am na am na ay làmb yu ma jël côté Gambia bi am na ay làmb mais finaalu naa daaw boo xoolee daaw six fois finaalu naa ko ay nag yoo xam ne dama ko perte. xëy na sama wërsëg moo si newul mais xaalis moom lu fa teg dama koy jël. Mhm. kan moo la éliminé ci ponkal yi. ñoo xam ne daje nga ak ñoom ci làmb simple bi ak ñan nga ci laaleel daan leen. waaw ku si mel ni comme Kombur la n'est-ce pas kooku daan naa ko. ordinateur bëri neen moom mu daan ma Cheikh Tidiane Niang waaw bëri neen mu daan ma euh, daan naa kii seen kumpa daan naa ko moom it mu daan ma fii encore final final nag bu ñu tegan fi mooy mbapatu perkate bi bu mujj bi dernière journée bi man ak moom ñoo ko finalu foofu waaw bëre fa bëre bu meti yàlla may ko ndam mais tamit làmb noonu la quoi gars yi moom yenn saa yi man man leen sax contrôler ku si mel ni 12 ans ñoo daje 10 millions yi passé rek. xam nga 12 ans waaw ñu bëre foofu bëre bu metti xam nga moom it ñuy défendre mais arbitre yi yenn saa yi dañuy favori mbër ko waaw dañuy favori mbër ba par moom moo mel noonu yenn saa yi gars yi xam dañ leen di jiima jàppale mais man gëm naa ne boog li yàlla maye bu ko bu ko dindiwul si man man damay doon champion si làmb incha allahu rabi promoteurs yi xamante nga ak ñoom wala xamante wu ñoom bala gisaguñ la ngay bëreeg yu demee noonu est ce que dem ci ñoom di leen démarché. waaw bu baax parce que ku si mel ni sama grand Idali Ñing maa ngi koy béggee bu baax di ko. bu baax ku baax nit ku baax la suñu grand bu baax la. waaw di ko nuyu bu baax am na benn copain bu nekk fii sax rakkam la. Fallou Fallou bu sabal la day sonn si man moom moo def démarche yooyu ba ma xamante ak Idali di ko bëggee tamit moom bu baax Idali ku si mel ni Idali ay gars yi bari nañ rek bari na ñun xamanteel bu baax a baax ku si mel ne Abdoulaye Ndiaye sax dañuy déggante téléphone lu bari. Zal ba grand Zal mooy sama manager tamit moom day sonn si affaire yi mais gars ñooy delloo sama avance. promoteur bi moo ne ma. jiili ma ne ko waaw ne ma wasaare sama wasaare la lépp loo bëgg dinaa la ko defal damaa bëgg nga tëggal ko combat ci journée boobu nga xamante ni tëgg nga ko te du yàgg tuuti démb daje nañ CNG man ak moom ñagas ak caatuwaalo incha allah rabbi dinaa ko wax dina la ci tëggal le 29 di nga laale bu soobee incha allahu rabbi instant bi man pare naa moom man moom bër bu ma jox bu paree nan ko xoolee bu dee sama naataango pare naa pour bëri ak moom Mhm. ndax Colobane ni ma ko gis mu mel nii xam naa ni boo ñëwee arène nationale du doy tuq sa bënn saañ ba réer la. man moom loolu lu ma leer naa ñu la Colobane moom su ma jógee dañuy jóg te des na parce que waa Ndangal ma dañuy jog waa Bentale dañuy jóg. waaw kon man gars yi ñu ngi ñu ngi bëgg sama combat chaque jour ñu ngi wax chaque jour ñu wax mais man moom toujours rek du ma découragé wu entraînement damay rey sam bopp. billaahi walaahi dañuy ànd di contact lu métti waaw man li may wax chaque jour rek man ñaari mbër toujours laay nungu ñu dàq maa bëre ba ñett muy yankaaw booy Dakar ak sens interdit waaw man ñooñu toujours rek damay jàpp ne ñii ñoo ma dàq bëre si laam mais ku dul ñooñu góob ma ne yaa ma dàq bëre parce man damay def lu ne si bëre nag billaahi damay def lu ne si bëre. waaw mais xeex bi laa bëgg a wane si làmb ji waa na ma gaa yi jël. simple bi moom dee ko continuer di compétir di ñëw ci làmb dóor bi boo amee combat ñëw boo amul dem ci làmb simple boole kook sa liggéey ndax mbër dafay am métier lii dafa baax mbër waroodu boo amee combat rek làmb moo lay booleek làmb boo amee kombaa nga dem ci say nit ñu baax ñu jàpp waaye nit koo xamante ne chaque jour bu yëkkatee jox la bu yàggee mu jéppi la lii lu baax la te leçon la ci képp koo xamante ni mbër la. man moom mbër bu nekk loolu laa lay conseillé mbër amul lu dul métier xam nga bër démb bi ñuy def réunion rek suñu benn booy rakku sabala la dafa bëgg a dugg si làmb loolu laa koy wax ne naa ko làmb dafa metti parce que ñun ñi si nekk nii liñ siy daj toujours da ngay dégg mbër moo xam ne sax danaan bu démb doon tey du ma dugg si làmb mais tamit gëm-gëm rek moo la si mën a bàyyi ah làmb moom gëm-gëm rek moo la si mën a bàyyi mais sa liggéey na nga ko fonk man sama liggéey dama koo fonk de su ma amee liggéey yàkkamti nii jar na sax ma woo sama coach su Baye na ko père mu ne ma waaw ma ne ko tey li may ñëw dafa yàkkamti tey mënu ñëw écrit mais du tee bu ma wàccee ngoon gi ay 19 heures damay dem entraînement ma dem entraîné ji parce que tamit loolu moo ma war xam nga parce que làmb ji moom gars yi moom chaque jour ñu ngi entraîné saa boo toogee di nooyal ñu ngi teg seen bopp lu métti kon boog balaa booba yow nga teg sa bopp lu méttee méttee métti wax dëgg yàlla. Mhm. di nga bëre incha allahu rabbi xanaa liñ amoon ci waxtu jot na xanaa dañ lay bàyyi nga tàggoo rek bu ko defee ñu yeewee ko ba ëllëg. waaw loolu am na solo tamit di bëgg si yéen man moom loolu laay wax bu baax a baax a baax di bég si yéen tamit gars yi fii bëri na gars yi sonn si man mënuma lim sax seeni tur parce que ñii taxaw xam nga ku si mel ni Fallou mais sama gaañan la ay booy Papi Diouf xam nga gars yi ñoom ay ñoom Abdou Ndiaye ñoom ñëpp xam nga di nuyu président Lin Diop moom mooy président fans club bi fii di ko bëggee bu baax a baax a baax xam nga di nuyu sama gars yi ma nekkal marché bële tamit mooy loolu ñoom dañuy sonni si man waaw bu ma jugee si loolu tamit maa ngi nuyu sama waa dëkk waa Altu Ndangal ma waa Mérina saar xam nga di nuyu sama grand yi xam ne nag dañuy sonn si ñun bu ñu amee combat si mel ni Moussa Iba Mor xam nga Tooy Ndiaye gars yi noonu dañuy sonn si ñun bu ñu amee combat di daj lu métti di dem fu ne di nuyu tamit xam nga sama sama waa dëkk waa Kaarang waa Kër Samba Gueye Kër Layen xam nga gars yi noonu yëpp siy sonn ah waaw Ndounkebe munu tur yi sax mooy loolu tamit boo xoolee daaw laa fa dem mais comme ku fa mos a def ay at. billaahi parce que dama fa dem wane sama bopp. billaahi wallaahi parce que man ak Cheikh Tidiane Niang ñoo fa demi final mu daan ma demi final daan yankaaw sama dëkk boobu dan ma fonk parce que ñun bu ñu demee làmb li ma gëm su ma demee damay neexal làmb bu bëree jotee ma bëre te tamit si fulla ak fayda man moom mbër bu ma mën di dajeel bu arbitre ne piip topp suñu diggante ñun ñaar ah bu fekkee nangu ngaa bëre rek combat bi du mat sax cinq minutes billaahi wallaahi man loolu laay gëm loolu laay doxee di leen bëggee nag yéen bu baax aw ma seen fay di nuyu waa Colobane sama gars yi nekk fii bu baax baax maa leen di bëggee parce que dañuy sonn si man quoi a ma sax seen fay. billaahi sama kombaa bi passé dañoo dajale seen xaalis bu bari jox ma billaahi xaalis bi noonu la noonu laa ko nekkee foofu di utiliser xam nga di nekk si dem si sëriñ seeg fépp. ba dernier moment lan nañu làmb ji affaire yooyu noonu amatul ci moo delloo avance te tamit yooyu mbëri nan ko bàyyi quoi bëre bu la taxee jóg da ngay dëggal sa bopp ak lu mu mën di doon nga bëre waaw maa ngi bëggee sama gars yi ku si mel ni Moussa Lo Ousseynou Karbala Cheikh xam nga sama gars yi nii ñëpp ay booy ndookaan ay ñoom Basiirou Fallou xam nga gars yi daal amoo seen fay quoi ay sama fils bi Abdou Ndiaye ah ak mbër ma la champion bu ndaw la ak Talla <laughs> Maas gars yëpp maa leen di bëggee billaahi wallaahi gars yëpp maa leen di bëggee waaw. nee na sëñ Bass nee na ba xam yow est-ce que mën ngaa jaay talon boo amee combat. maanaam bologu billet mën nga ko jaay boo amee combat. <laughs> sama combat bi ma mujj a bëreel prési quatre bolog laa jaay bi ma mujj a bëreel prési laa la wax de quatre bolog laa jaay. billaahi ñaari fii la jeexee si marché bi yeneen yi bi ma demee dëkk ba la jeex. billaahi ñun promoteurs yi xaj na ñoo ñu tëggagul de mais buñ ñu mosee duñ ñu bàyyi man li ma la wax dafa leer. barke Serigne Touba Mbacke suñ ñu mosee duñ ñu bàyyi kii mooy Sabala 2 rang muy gaaw laa wax. mbokk yi kon dégg ngeen li nga xamante ni moom la Sabala 2 wax. xale la boo xamante ni kaay leen tëgg ko làmb Idaali Fallou Ndiaye euh, Jax production ak euh, nu mu tudd Assane Ndiaye ah Dieye ñëpp ñi nga xamante ne ay xale ngeen ni moom ñëw leen jàppale ko ci làmb ndax bëgg naa wane boppam ci làmb te xale la boo xamante ni ku ko jàppale mu mu dem xale bu amee mbooloo fu mu jugee ñëpp jug topp ci ginnaawam kooku jàppale leen ko te làmb am nañ ci moom yaakaar. mbokk yi kon noonu lañ leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko ba la incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf. rek muy gaaw.